Nous avons kappa ñu ngi leen di nuyu di leen dit di leen ñaanal dit di ci dit ñaan euh, di journée def conférence annuelle bindon def te ren 6 sixième édition bi wa Allahu, Nous ngi koy def dimanche dimanche 11 août fi ci kappa fi ci Jumaji... incha allahu dinañ ko defa euh, tàmbale 9 heures incha allah ba ay ngoon ñu ngi woo jullit yépp nag ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew képp koo xam ne mun nga ci jàpp ñu ngi lay tàllal sa loxo suñu loxo nga jàpp ci ci daara ji tabaarakallaahu feet la boo xam ne waa daara ji ñoo koy baaxoo di def at bu nekk defal ko xale yi ñu yendoo tari alquran ba ngon fa tabarakallahu nak nag kuko ko ku ko wuute eh, nga xam ne eh, wuute nga lu lu rëy waaw autorité yi ak ñi nga xam yi ñi nga xam ne yàlla leen leen gan nyom ñépp ñu ngi leen di woo ci daara ci daara soxla na jàppale daara soxla na jàppale parce que ñi fi ne ñi fi ne ñoom ñooy sacrifié wu di leen yi duñu yelwaan amuñu amuñ ko képp koo xam ne mu ngi ci jàng da ngay dëkki sa kër ba suur soog a ñëw ci daara ji ñu jàngal la añ jotee nga dem ñibbi seen kër waaye ñi nekk ci daara ji euh, sacrifice la ñuy def guddeeg bëccëg ñu ngi ci xale yi. waaw woote bi ñuy woo nag ñu ngi woo monsieur le maire moom mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci dëkk bi ñu ngi woo ki nga xam ne moom mooy. Ahmed drame fa tabarakallahu te ni ko sante di geureum def na fi jef ju reuy moy conférence bi ni ngeen gisee xalé yi fa tabarakallah bu ñepp mom mo len jëndal ñu ñuy defé conférence yalla nako yalla fay di wo ki nga xamne moy Alsan Bokar Thiam ak ñom Sidi bass ak kar euh, Samake koku mu ngi almadi ñoom ay du congaan ñoom ñoo ñi nga xam ne parrain yi ak marraine ay ñoom xadigéey ñoom Fatou Ba fa tabarakallahu ñoom Tina Jum ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy parrain yi ak marraine yi suma ma limee damay juum euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo di woo waa dëkk bi ñëpp euh, di woo ñoom <clears throat> Abdourahmane kamara ñi nga xam ne ay responsable lañ responsable politique lañu ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci journée bi ñu ngi leen di Euh, woo di leen invité ci journée bi euh, di leen ñaanal yàlla yàlla fekk leen ci jàmm ci tal euh, ba ñu mën a teew ci journée bi 76 472 ah 42 58 képp koo xam ne bëgg nga ci def dara soo defee ci li Wave wala Orange Money danañ ci jot ñu jottali ko fi mu jëm tabarakallahu لول لا امون لو وخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته